هدادي وخلامي sëñ mi nga xam ne professeur la jàngalekat la di liggéey ci wàllu recherche euh, bind na ay téere yu bari euh, tey moo ñëwoon bind benn collection boo xam ne euh, mi ngi jëm ci wàllu jàngale siira biographie Cheikh Ahmad Bamba moom la doon jébbalu si tey di ko jox si kilifa gu mag gi di Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général de Mouride hafisahullah wa raa jébal na ko sëñ bi bég na ci lool bég moo xam ne wane na ne nee na ko lii nga def tawféex la am nga tawféex waaw ndax tawféex mooy fexe ba mën a fexe ba def dara lu nit ñi ak taalib yi mën a jëriñoo rawatina ndaw ñi rawatina ndaw ñi mu ne ko nag am nga tawféex te it na xam ne dangay ngay gën a am tawféex rek day jëm kanam rek te da nga xam ne nag lii mooy liggéey bi loolu la ko sëriñ bi wax bi ma ànd moom dem ci sëriñ bi di ko jébbal liggéey bi kon loolu doy na doy na sëkk ci eh, waxi sëriñ bi kon loolu yaakaar naa ne ñëpp dégg nañ ko.